monsieur le préfet ñu ngi gërëm ci seen installation bi ngeen jiite di leen féliciter ci ni ngeen doxalee processus électoral bi ba yàlla def ci lim ci def élection yi am na malgré ay incident yu ndaw ci jàmm ak salaam di leen wax ni ñu ngi jaarale suñu nuyoo ci yéen pour mu yegg ci seeni kilifa jiital ci monsieur le gouverneur de Ziguinchor euh, monsieur le ministre de l'intérieur ak monsieur le président de la république ndax ñoom fi toogal euh, di wax tamit ni ñi ngi félicité ñëpp ñi demoon ci compétition bi yëpp ñu ngi leen di félicité ki li mu mënoon def te gëm naa ni ku nekk yéene bu rafet ko taxoon a jóg ci li mu bëgg a def fii ci Ziguinchor di féliciter particulièrement ñi nga xam ne nag fal nañ leen ak liste ñu mën a bokk mooy conseil yi teew fi tey di leen féliciter te ak liggéey moo ñuy xaar te liggéey bu bëri la di dellu jaajëfal nag ñi nga xam ne ñoom la bokkal coalition kenn ku nekk def na ci kéem kattanam di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom laa bokkal sama parti bi Pastef ci seen taxawaay depuis ay ati waaye it di gërëm suñuy mbokk ak suñuy wayjur ñi nga xam ne yàgg nañoo taxaw ci liggéey bi lu ne dégg nañ ko ci lu gën gis nañ ko ci waaye boobu lañu ñu gën a takku ngir jàppale ñu kon ñu leen di gërëm ak fu ñu mën a féete monsieur le préfet installé ngeen ñu en tant que maire de Ziguinchor du bànneex bu ci yéeg su dee mënu cee ñàkk it li waral loolu li nga xam ne moom la ñuy yéeg suñu bopp ci sas moo ëpp doole fuuf te ku xam lan mooy pal ndax bëri na ñuy xëccoo palu nañ ma fal nañ ma fal. waaye pal responsabilité bu rëy rëy la diine koo dem nag wax na ci responsabilité la ci ñi nga jiite kenn ku ne ci ñoom bés dina taxaw nga waral na yow moom ci lim la wóolu woon nga dénk la waaye responsabilité la ñun ñi ñëpp ay nit ñu gëm lañu suñu kanamu borom moo tax du lu tuuti nit bu xam luy fal dëkk buñ la falee da nga war a tëju di jooy waaye waroo woo sabar yi di dëkk parce que foofu la problème bi commencé. ma wax ko pour man nag mais wax ko aussi pour képp kuy conseil ak képp ku am responsabilité li ñuy xaar Mumbaay du séddoo ay avantage waaye liggéey bu bëree bëri la jaamu yàlla la parce que askan gi wóolu waru gën a gore jaamu yàlla la parce que loo ci def di gis njëriñ bi fii wala di nga gis njëriñ bi fële tamit kon ñaari dañuy xëccoo lu bëri pour falu def ci alal def ci suñu temps mobiliser ay oto mobiliser ay nit léeg-léeg mu jaral ni ñu xeex ba nit ñi di ci gaañu bakkan mën na ci ron sonn ci gannaaw bu ñu falee ñu def suñu kéem kàttan pour fay ñu fal ñu fexe ba ñi ci gën a kawe ñu fexe ba nekk foofu waaye dañu ràññee fii Sénégal mooy bu ñu demee ba yegg foofu nag la askan wi doon xaar ci ñun safaat ba la def kenn ku nekk tal lu muy dugal poosam ak lu muy séddoo ci li nga xam ne ñëpp a ko bokk loolu nag ma teel ko wax fii fii rek man maay nekk ci mairie Ziguinchor loolu la fi am tey tey duñ ko waxaale duñ ko négocier du nag lu ñuy yedd nit wala ay menaces waaye suñu responsabilité la en tant jiit ñu wax ko ñëpp dégg ko ñu wax ko conseil yëpp dégg ko waaye ñu wax ko askan bi ñu wóolu dégg ko ñoom it liggéey moo tax a jóg seen liggéey rek la def wax naa ko fii keroog ci bés ba bi soxlaw ma fi salaire soxlaw ma fi indemnité soxlaw ma fi avantage liggéey moo ñu tax kon xaar gis nga askan wi askan wi li mu bëgg mooy sentir ni ñii liggéey mu leen tax a jóg bu boobaa boo demee ba ba fi nga tële askan wi nga xam ne fii tële nga def nga li nga mënoon def yépp en tant kon loolu laay xaar ci chacun et chacune di feddali ni liggéey bi aw ma ci ku ma ci betti une fois on est conseillé tous conseillés ku ci bokk liste UCS ku ci bokk liste Benno ak ku ci bokk liste Yewwi ñoom ñëpp ay conseillé lañ kon élection bu jotaatee dans cinq ans ku nekk nga taxawal sa mais diggante bi liggéeyal waa Ziguinchor moo fi des dañu joxante loxo ñu liggéey loolu mooy li ma ci bëggoon wax ci lu gàtt daaneel ci wax ni monsieur le yaa fi toogal état wala état central ñun ñu toogal fi état déconcentré parce que bokk na ci responsabilité maire même maire ci représentant ci état la bi nga ko doonee yow kon jàppal te liggéey ngir njëriñu askan wi njëriñu Ziguinchor ak njëriñu Sénégal moo ñu war jàpp naa ni am en tout cas am naa yaakaar ni noonu lay demee ñëw nañu ak programme bu yaatoo yaatu boo xam ne liggéey bu bëri waaye buñ ko doxalee niñ ko bëgg doxalee gëm naa ni si Ziguinchor bii ñu fekk tey ak Ziguinchor bi ñu jëm fii léegi. ay weer ay at dina doon ñu ute torop loolu nag pour mu na ci loo xam ne lu ñu war lënkaloo la lu ñu war liggéey la ak yéen ñu jàpp ni bu liggéey jotee rek ngir njëriñu askan wi dinañu bàyyi toute autre considération d'autant que préfet amul coloration politique fonctionnaire la agent de l'État la état lay servir régime bu ñëw fekk ko fi bu dem ba ko fi ba keroog muy jël retraitam kon kooku gëm naa ni lépp lu ñu andi te muy jëriñu askan waruñu cee am problème waruñu cee am xaar yàlla te gëm nañu noonu monsieur le préfet kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp wala wala nag jaar